fi ñu jaar dafa metti. non fi ngeen jaar moom des na metti mbër. ku am lu la gën a am lu fi sës. moo fi sës kon gënalu la. man sax kii gënalu ma. barke Sëñ Fallou est-ce que baax naa si moom. baax na si yow. loolu tam il faut nga comprendre musul ay tànkam wala maam jëm ci yow. Mbagnick doo raf dara at ku doo raf dara.